ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu jaamu yàlla ñaan yàlla subhaanahu wa taala yiw wi mu digge ci bisu àjjuma ak li ciy tege lépp yàlla defal ñu ko yomb na koom yàlla yàlla na ko def euh, incha allah sama suñ waxtaanu tey ña ngi koy jëmale ci fàttalante ci tomb boo xam ne euh, tomb bu bu jar di fàttalante la ndax euh, fàttalante wala boog fàttali dañuy dañuy bàyyiloo xel suñu objectif tomb boobu mooy jaamu yàlla mooy euh, dégginu jaamu yàlla mooy mafhumul ibaada jaamu yàlla concept bi wala nuñ koy conceptualiser lan mooy jaamu yàlla euh, <coughs> ñun ñëpp xam nañ ne li ñu indi fii ci kaw suuf du leen lu dul jaamu yàlla loo gis ñu koy taxawal faaw mu objectif yàlla moo ñëw njëkk woon loolu nit du jóg di dem rek amut fu mu jëm du loo gis ñu defar ko rek am na jubluwaay mbindee fii ci kaw suuf yépp seen jubluwaay bi tax ñu ñëw fii ci kaw suuf mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala loolu gis nañ ko ci ay aay yu bëree bëri moo tax xam la jaamu yàlla mooy lan kon dina am solo nit ki dégg jaamu yàlla ñàkk am déggin wu leer ci jaamu yàlla mën naa indi ay jafe-jafe ci doxalinam fii ci àdduna léeg-léeg xam nañ ne ñàkk gee xam la jaamu yàllay tekki mooy waral ñu bari di tàqale yenn jëf jàpp ne lii àdduna la yem lee àllaaxira la jëm euh, yàlla ci ci mbaaxam dañoo defal àdduna ngir ñu préparer àllaaxira mënoo nekk àllaaxira di liggéeyal àllaaxira loolu tam lu jar a bàyyi xel la mooy ku egg si àllaaxira jeex na fii lañuy ñuy préparer le fait ñuy préparer fii nañ bàyyi xel ne li ñuy may ñu xam nuñ fi préparer mooy ñu dégg lan mooy jaamu yàlla loolu c'est très très important. kon euh, jaamu yàlla mooy nangul yàlla ah benn déggin wi njëkk mooy nangul yàlla am na ci jaam ñi ñoo xam ne nangul nañ ko ak ñoo xam ne nanguluñ ko nangu ndigal yàlla ci sa bopp jox yàlla sa bopp jox yàlla sa bopp loolu mooy jaamu yàlla niveau boo mën a nekk moo tax daraja bi gën a kawe mooy nga nangu doon jaamu bi yàlla loolu mooy benn bi euh, bi ci des mooy nga mu leer ci yow ne jaamu yàlla sa lépp lay jël sa jëf yi nëbbu ak yi feeñ say wax say acte bépp acte boo def rek jaamu yàlla waaw ah, foofu gis nga moo tax seytaane li muy dox li muy bi gën a mag ci moom wala boog defi bi gën a mag ci bi seet seytaane teg mooy dox diggante nit ki ak mu comprendre jaamu yàlla waaw ah. buñ gisee jullit ñi li ñuy dugal ci ci fiiru seytaane mooy ñàkk dégg jaamu yàlla kum leer ne loo wax sax jaamu nga yàlla su wax ji rafetee am nga ci yool su wax ji ñaawee am nga ci bàkkaar diggante booy defaree jaamu yàlla la soo ci defee ay jéego am nga ci ol soo ci defee ay safaan am nga ci bàkkaar foofu dañuy euh, bàyyi xel ñaari mbir borom xam-xam yi dañ ne jaamu yàlla niñ koy séddale dafa am lu ñu tuddee jaamu yàlla goo xam ne njariñ li dafa personnel mooy njariñ li waaw ibaadaat boo yoo xam ne njariñ li zaatiya la ak beneen jaamu yàlla boo xam ne njariñ li mutaaddiya par exemple ki woor ki julli ki zikr ki jàng alquran loolu ay jaamu yàlla la loo yoo xam ne day defar sa biir yow dalay lay préparer dëgg la ci beneen côté man nga ne soo defaree sa biir ca ci société bi nga bokk da ngay mën ngaa paas loolu nga defar sa biir société bi mu am beneen jaamu yàlla boo xam ne dalay romb yow soo fi jógee sax njariñ la dalay fekk sa biir bàmmeel mooy lu mel ni joxe ci yoonu yàlla joxe ci yoonu yàlla nga yor loo xam ne mën nga koo jëm yemal sa bopp mu romb la yow nga def ci ci coom loolu mooy jaamu yàlla ci beneen dimension defare ay diggante woote ci lu baax tere lu bon jàngale lu baax loolu boo ko defee yaa ngi yaa ngi teg ay placement placement yooyu ngay def boo fi jógee dalay dalay dalay dalay fekk euh, sa bàmmeel moo tax euh, benn boroom xam-xam bu mag ne jaamu yàlla ay wax la ak ay jëf yu nëbbu ak yu feeñ tàmbali ci julli woor aj màkka dëggu ci say wax defare ay diggante rafetal walla boog def nangul say waajur defarek mbokk digle lu baax tere lu bon rafetal jëm sa dëkkandoo jàppale ki nga xam ne dafa néew doole euh, rafetal jëme ci miskin walla yatim di sellal sa diggante ak sa boroom loolu ci jaamu yàlla biir gi la bokk di muñ bu la nattu dalee wala lu naqari dal la di sant yàlla soo amee ay xéewal di wàkkirlu ci yàlla foo jaaxle loolu tam c'est très important euh, dafa am euh, ci dégginu boo mën a gis rawatina dégginu lislaam mooy nga xam baat bi lu muy firi dund baat bi nangu ko bokk na ci nangu ko nga nangul yàlla subhanahu wa taala kiy wàkkirlu mooy ko xam da dem ba gis ne fii kenn nekku fi kudul yàlla subhanahu wa taala loolu tam important loolu doo ko doo la ko doo ko délégué kenn ah. am na jaamu yàlla yoo xam ne de façon jaamu yàlla ci bari mënoo dafa personnel mënu koo délégué mais ñàkk koo def nag day wàcc sa sa degré yàlla jurit boo xam ne moom jàpp na ne ñaan jox boppam boroomam am du ci xalaat sax toog julli ñaari ràkka sujjóot te xam nañ ne barabu sujjoot dañ ciy nangu ñaan fi jaam bi gën a jege boroomam mooy fi muy sujjoote nga nga diis sa yitte yàlla subhanahu wa taala loolu yaa ngi yéegal sa ay maqaamaat yaa ngi yéeg noonu tamit wàkkirlu boo demee ba jaaxle nit nit la day juum day toll ci ay xat-xat day am ay yitte yu fajuwut day day yooyu yëpp ko amee na delloo yàlla njukkal tawakkul àlallahi azza wa beneen bi mooy ginnaaw bu mu xamee ne jaamu yàlla yi ñaari xaaj yooyu ma junj léegi la mooy boo xam ne dafa dafa dafa yem ci moom dafa tàmbalee ci moom mais boobu tamit yooyu tamit nit ki da ci da ci da ci tàggat boppam lépp ci kaw suuf dañ ci tàggatu ndànk-ndànk bu ba nga yéeg lépp day jaar ci yar waaw moo tax ñu bari ne ku la raw raw la na ci raw la ci yar la rawee te yar du egg yar du mat yar du mat yar dangay ngay yéeg ay degré moo tax boroom xam-xam yi xam la yar sax dañ ne ndànk-ndànk ba baa ngay egsi ci objectif bi te bu dee ci lislaam gis nañu objectif bi mooy dugg biir bàmmeel waabud rabbaka gis nga baatu ibaada waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin da ngay jaamu sa boroom boobu dugg biir bàmmeel yàqin boobu mooy bàmmeel kon comme loolu loolu la mooy comprendre ko dalay dimbale dalay dimbale nga nga nga defar sa personnalité jullit bi ëpp personnalité mooy ki jox boppam boroomam dara du la jaaxal dara du rëy sa bët dara du tax tamit nga gis nga am dara ba mu ba diis ba mu diis ci yow dangay xam ne ki la jox lii tey mën na la ko xañ suba hmm. xañ la ko tekkiwut ne amoo benn wàccuwaay ci moom ndax lii nekk ci kaw suuf ci àdduna nañ bàyyi xel ne responsabilité yi plus comptabilité buy jël temps plus ngay amee responsabilité plus ngay rendre compte ci responsabilité yooyu nga yoroon moo tax toujours loo yor xamal ne lii mënoon naa koo yor mënoon naa ko bañ tamit yor gi ma ko yor taxul ma gën ñi ko yorut loolu c'est très important xam na yow ci biir nit ñi nga bokk xëy na lii yàlla jaarale ci yow moo xam lu ma a doon moo xam muy alal moo xam muy daraja moo xam muy bépp privilège da jàppe ko ne yàlla dala koo jox privilège delloo ko ci njukkal delloo ko ci njukkal ndax sinon boo ko defut ëllëg comptabilité bi mën naa jël temps ci loo xam ne dossier yu yu jàmm bi du mën a ubbi lay doon yàlla nañu yàlla defal tawfiq euh, kon jaamu yàlla subhanahu wa taala nit ki da cee war a taxaw xam ne ak dundam lay jël nan lay fexe nag ba mu doon ak jàmm yàlla mooy da ko def yéene da ci yéene mooy yéene ji rek mooy def différence bi ah, xam ngeen xadis boobu ñu naan ki ki rey weñ ki ki ki ki bëggoon a jox eh, maanaam eh, defal sarax yàlla ci deret mënu ko mu aw weñ romb ko mu rey ko ne yàlla mënuma eh, am aw ma kàttanu génne deret ju ëpp lii kon loola ma defoon même bu dee njuumte la dama ko jaamu yàlla ak koo xam ne dafa tur da jox ko leneen ah différence bi mooy yéene ji ma ngi mel ni ñeenti rakk yi nit kiy julli ta heure heure heure tisbaar ah su fekkee euh, yéene ji rek mooy déterminer moom ra lim ju lim def ci jaamu yàlla moo tax foofu tamit jaamu yàlla gi mooy yéene ji nit ki day jullit dafa war di yéene ci lépp lu muy def suy wut liggéey na yéene na liggéey bi may wut dama cee fas yéene jaamu yàlla ndax taxawal kër jaamu yàlla la lépp looy def ci jàppale nit wala nga jàppale sa bopp yéene ci jaamu yàlla soo ci bàyyi soo ci yéene wut jaamu yàlla gi jëf ci dafa day dem noonu rek ma ngi mel ni koo loo xam ne day naaw ah te kenn xamut fu muy fu muy fu muy fu muy dal fu muy tàgg kon ñuy beesal toujours yéene yi euh, moo tax saxaaba saxaaba yi dañoo xamoon secret boobu saxaabatul kiram c'est extraordinaire day am solo toujours nit di dem ba ci àgg muy xool xool saxaaba yi nan lañ daan doxalee du woon lu extraordinaire dëgg la amoon nañ taw feexu dend ak dend ak kiy joxe kiy joxe àtte yi amoon nañ chance boobu mais beneen chance bi ci des mooy ci ñun ñu ñuy jéem a liir seeni siira di leen de di jéem a jaar fi ñu fi ñu daan jaar surtout ci jamono bi jamono jaxasoo ah moo tax ku mel ni euh, Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ñi ñaan lool ñaan yàlla subhanahu wa taala muy def mu ay jëfam yépp mu doon ak jaamu yàlla loolu moo war a doon taxawaayu jullit bu mën a doon mooy fi jamono jaxasoo nga jël sa position wu jaamu yàlla beesal ko euh, kon du waxtu waa ngi dem ma ngi ma ngi sori mais nelaw ak yeewoog lépp ak jàmm yàlla la waxi Muazim li jabal ji mu doon wax man mu ne damay ñaan yàlla inni la axtasibu nawmati kama axtasibu <coughs> xawmati man samay nelaw sax dama ci am yéenay mu doon ak jàmm yàlla comme ni may amee yéenay samay taxawaay sama yëngutu yépp doon ak jaamu yàlla yàlla na yàlla defal ñu suñu jëf yépp doon ak jaamu yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla yomb na koom yàlla yàlla na ko def subhanaka allahumma hamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk salaamaaleykum alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sunnati سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salaatan wa salaaman daimayni mutanazimayni ila yawmi din ayuha almuslimun usikum wa nafsi almuslima bi taqwa allahi taala wa taati amma baad fa ya ibad allah inna min acdami ma sharaahu allahu fi lislam ifshaau salaam alladi huwa taxiyatu ahli lislam qaala alxaafiz ibn alxajar rahimahullah ifshaau salaami almuraadu nashruhu sirran aw jahran wa huwa nashru salaami bayna annaasi li yaxyaw sunnata annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante borom bi tabaraka wa taala julli ci yonentam bi suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñun ñëpp ñu ànd góor góorlu ci lépp lu ñu mën a dolli ragal yàlla bu loolu jàllee mbokk jullit yi bokk na ci yi ëpp solo te sharia teg ko jullit yi mooy ñu am ajo am aajo wolof la mooy koo romb nuyu ko bokk na ci yi ñu yi ëpp solo ci lislaam yi mu sant jullit bi mooy mu am ajo kum romb nuyu ko am ajo nag mooy ni ma ko waxee koo romb nuyu ko waaye nga nuyoo ko nuyu lislaam te mooy nga ne ko assalaamu alayka wala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu malaaka yi bu ñuy nuyoo dañuy ñaanalante jàmm dañuy ñaanal jàmm yàlla nga wax ci alquran wal malaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baabin lan la ñuy wax salaamun aleykum bima sabartum fa niama uqba daar malaaka yi sax bu ñu demee alaxira bu ñuy nuyu jullit ñu texe yi fekk leen biir àjjana asalaamualeykum lañ leen di wax asalaamualeykum yéen ñi muñoon lu métti ba nekk ay jullit asalaamualeykum yéen ñi góorgóorlu woon ba bàyyi bakkaar asalaamualeykum yéen ñi daan jéggulu seen bakkaar seen borom bu leen bakkaar rëcc loolu moo leen jural taraale gi ngeen nekk tey kon ñaan jàmm ni ñu ko lislaam sante la ko sante malaaka yi ñu ñaanalanti jàmm mu ñi dem àjjana dañuy ñaanalanti jàmm yàllaa nga wax ci alquran wa tahiyatum fiha salaam surtout yunus nee na jullit bu ñu demee ajjana dañuy ñaanalante jàmm yàlla ne laa yasmauna fiha laghwan wala taathiman illa qiila salaaman salaama nee na ajjana amul waxu caaxaan amul waxu mbóosóor koo dajel mu ne salaaman salaaman ay assalaamu aleykum assalaamu aleykum ñéppay nuyoonte ndax yéenante jàmm asalaamualeykum mooy yàlla na nga am jàmm bu dee koo dajeel ne ko yàlla nga am jàmm day yëg ne yéene nga ko jàmm parce que koo yéenewul jàmm doo ko ñaanal jàmm soo ko yéenee jàmm mu yéene la ko ba pare bëgg la ndax ku la yéene jàmm nga bëgg kon day yombal contact diggante jullit yi ñun wax naa leen ko dañu fee indi sas ñu sas wuñ bokk ñoom ñun ñëpp ba pare sas ñu ay sas yu ndaw yuy tax ñu mane suñu boor ci sasu mag kon nag il faut ñu ñu ñu ñu ñu miinante ñu bëggante ñu nawlante sinon sas wi ñu sas duñu ànd def ko duñu ànd bay ko mbooleem jaamu yàlla yi ñu yàlla sas en tant que ay individu lim ci jublu mooy ñu mel noo xam ne danañ mën a bokk ak nit ñi ci sasu mag mi kon li ñu liñ sax liñ fi indi mooy sas wi ñu bokk ñu ñëpp te mooy taxaw kaw suuf ba suuf am jàmm ba ku fi dëkk am jàmm loolu mooy secret bi yàlla nee na taxiyatul muminina yawma yalqaw yalqawna rabbahum même bu ñu dajeeg borom bi yawmal qiyaam yàlla nañ dajeeg moom mu ñuy teral nee na bu boobaa sax bu ñuy nuyoonte dañuy ñaana ñaanalante jàmm yàlla na taxiyatum yawma yalqawnahu salaam waa wa aadda lahum ajran karima kon nañ nañuy fonk nuyoonte nañ koy fonk nañ am aajo ci nit ñi nañ leen di ñaanal jàmm nañ leen di nuyoo nuyoo koy ñaan jàmm bàyyi sawa va comment vas-tu loolu moomuñ ko ñun suñu nuyoo daa war a jeg jëriñ ki ñuy nuyu dara comment ça man xaw ma lan la mën a jëriñ ki ñuy nuyu parce que da nga koo laaj rek da koo laaj nan la def mën naa am baax na moom naa am saa mën naa am saa du mais bu dee jullit nag danaa la bu fi topp di bu fi nekk di topp too ci lu mu nekk wax wax ñaaneel ko li koy jig rek ñaanal ko li koy jig ñaanal ko liy defar affaire am rek ne ko asalaamaaleykum ñu bàyyi asalaamaaleykum bi nga xam ne moom noo mën a mel mu régler sa problème ñu ñëw di la laaj lan mooy sa problème après après boo xamee problème après ñun ñun lu ñu dal ñoo ko teg suñu bopp ñun jullit lu ñu dal rek ñoo ko teg suñu parce que dañoo waajal ba ñu waaj lépp loolu tax ñu am àdduna ak alaaka ñu ne ko fa ñukk dem di jéggaani luñ xamut lu muy tekki yàlla na yàlla dolli sutura wa qad amara allahu bis salaam inda duxuli almuslimina baadhum ala baad yàlla nee na jullit ñi ku ci demati kër jàmbur na nga ko nuyu yaa ayyuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dalikum xayrun lakum laallakum tadakkaruun xoolal bul dugg ci kër kenn te nuyu woo ko nuyu ko ba pare xaar ba mu ne la bismillah doo doo ñëw dugg ba pare door nuyoo da nga naan asalaamu aleykum na teg suñ la wuyuwul nga ne waat asalaamu aleykum teg suñ la wuyuwul aleykum na teg tuuti wëlbati ku ñibbi doo fi nekk di yurndoog di laaj fii ku fi nekk xanaa fii kenn nekku fi su dañoo ñun ñu doy waar la ñun Sénégal xam nga dugg ci kër gi salaamaaleykum tontoogu na nga fekk ci néegam ci biir néegam te xam loolu mu fa nekk bëgg loo nettali rek parce que koo bett rek gis awraam l'islam bëggul ñu bett suñu nawle daa bëgg foo toll di naw sa nawle moo tax mu bëgg nga umpale ko bu soobaan yàlla kenn ku ne xam moroomam ba mu jeex waaye bu ko defoon ñun ñëpp ñu xeebante te suñ xebante woon duñu ànd duñu nawlante yàlla moo bëgg ñu umpante moo tax am na ci ñun kenn ku nekk loo xam ne kenn mënu koo xam ci yow même wala yu mënu koo xam ci yow ndax yàlla dala koy aare waaye ñun voilà dañuy dugg ci kër jàmbur yi duñ nuyoo bu ñu nuyoo bala ñoo fay ñu dugg ci saal bi xool fu ne ñu xool fa lu ne fu ne ñu yurdu fa xanaa fii kenn nekku fi loolu lu ñu dal moo ñu ko teg ndax dañuy gis awra te awra woowu la ay aayoon na awra mooy mooy lu loo xam ne borom bëggul nga gis ko rek waaw même bu dee dara bu lalam su bëggul nga gis ko awra la ci yow bu bëggoon ko gis ko dalay entrer ci néegam kon yàlla neene bu ngeen di dem ci seen kër moroomu jullit yi na ngeen yëglu asalaamualeykum buñ leen wuyuwul ngeen ñibbi te bu leen wax ne boo demee nangam a tax bul bul supposé dara demal rek mënu laa recevoir si tur fii ne boo ko fi defoon kenn mu nuyoo ñaar yoon ñetti yoon wuyoo ko bu ñibbee lu ne lay wax ne moom nga doon def lu ne lu ne lay wax ne moom nga doon def borom bi tabaraka wa taala ne wa ida daxaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum tahiyatan ala anfusikum bu ngeen duggatee ci kër nuyu leen seen bopp c'est-à-dire ñaanal leen ko li ngeen di ñaanal seen bopp mooy jàmm su ko defee tahiyatan min indillahi mubaraka tayiba kadalika yubayinu llahu lakum al ayati laallakum taaqiluun loolu surat nuur la rek kon su ngeen duggee ci kër nuyu leen leen ni ngeen di nuyoo seen bopp c'est-à-dire yéene leen ñaanal leen jàmm di nga yéene sa bopp ñaanal ko ki nga dëkkal mu am ko wa hada ayuha al ixwa yadullu ala fadli taslimi inda duxuli bayt lii tekk lu dul importance su nuyoo booy dugg ci kër wa aadamu min dalika kullihi anna allaha samma nafsahu assalaamu loolu yépp li ko joggati mooy yàlla nee na moom mooy jàmm mu tudde boppam jàmm waaw ndax li jàmm am solo tudde boppam jàmm huwa alladi huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus alsalaamu almuminu almuhaymin alazizu aljabbar almutakabir subhanallahi amma yushrikun kon yàlla fonk gi mu fonk jàmm ndax xam ne ci jàmm la lépp xaj ci jàmm la lépp xaj ci jàmm la nit mën a defee lu mu bëgg a def mu tuddee ko boppam ndax ñu xam ne fonk na kon yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla may jàmm aqulu qawli hada wa astaghfirullah alhamdulillah alhamdulillah wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qasim muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadi wa baad ayuha almuslimun qad waradat kalimatu salaam wa tasrifatuha fi alqur'ani fi thamaniyatin wa ishrina mawdian fi kitabillahi azza wa jalla mbokk jullit yi baatu jàmm asalaam ak yi ci yi ci jóge ay dérivam ñëw na ci alquran vingt fois vingt la ñëw ci alquran kon baat bu ama am solo la wa taslimu wa daar salaam wa ma yataallaq bi tasrifati kalimati salaam kon baatu salaam kon ni ma ko waxee ak taslim ak yi ci jóge yépp ñëw na vingt huit fois ci alquran lu tax mu am la lan la borom bi jublu ci loolu liñ ci mën a xam moom moo xam li mu ci jublu lépp waaye liñ ci mën a xam li ci njëkk mooy assalaama min kulli shar borom bi daa bëgg ñu mucc ci lépp luy lore borom bi daa bëgg ñu mucc ci lépp luy lore assalaamatu min kulli shar yàlla nee na fa salaamun laka min ashaabil yamin nee na ne jàmm ñeel na la yow mi bokk ci ashaabul yamin wala waa ashaabul yamin yéene nañ la jàmm asab yamin ñooy jul ñu baax ñi mooy julli asaabu shimal ñooy ñeneen ñi surtout waqia ñaareel bi mooy baatu jàmm jooju mooy yiw jàmm mooy yiw jàmm wax salaamun hiya hatta matla'il fajr mu tuddee foogu salaam ci ilaa fi nu ñu ko dégg surtout alaq sooratul qadr waaw waaw inaa anzalnaahu fii laylatil qadr mu dem ba ca kanam salaamun hiya hatta matla'il fajr mooy da am jàmm ba fajar c'est-à-dire ci jàmm ngeen nekk ak yiw ba fajar xar su fekkee da ngeen a tombé ak laylatul qadr bu yàlla tombale yàlla nañ yàlla nañ egg ci koor gi yàlla nañ ko mën a woor yàlla nañu fekkee laylatul qadr ci koor gi yàlla nañu dajeeg moom yàlla nañ am cawarte jaamu ci yàlla su boobaa salaamun hiya hatta matla'il fajr yàlla dinañ ko defal bokk na ci li jox baatu jàmm gëdd gi mu am mooy assanaawul jamil waaw yàlla daf koo taggee ay yonent ne salaamun ala ibrahim yàlla ne yàlla ibrahima am jàmm waaw kon jàmm lu am solo yàlla mi moom jàmm suy ñaanal ay yonentam jàmm kon jàmm lu am solo kon jàmm ñun ñëpp a ko war a yéenante te ut salaam mooy ajjana ajjana sax salaam la tudd yàlla jàmm la tudd ajjana jàmm la tudd lan fu ko yàlla wax lahum daaru salaam inda rabbihim yàlla bi muy tagg jaamam yi ko dëggal dafa ne ñoom ñoo daaru salaam te mooy ajjana kon mbokk jullit yi lii yëpp di ko jur mooy bëgg ñu dëkk ci jàmm foog ñu dëkk ci jàmm ñun yàlla dañoo bind sant ñu ñu nekk ay mbooloo ñu dund société ñun kenn ci ñun mënut a dund moom dong su ko su dundee moom dong du mat nit du mat sax nit bay nekk jullit ñun ci biir nit ñi lañuy ñuy mate waaw c'est-à-dire ci biir nit ñi lañuy ñuy defaroo mas naa ko wax sama benn mbokkum taalibe ku baax. ku am diine mu daan bari lu muy yëngatu ci liggéeyu lislaam bi ma jekk bi ab diir gisatuma ko yàlla dogal ñu daje ci yoonu mag ma laaj ko ma ne ko sëñ bi man gëj naa la gis mu ne waaw man maa ngi fi de ma ne ko ah man jafar jaaxal parce que gisul doole fenn mu ne waaw parce que dafa am lu ma defe woon te du noonu ma koy corriger ma ne ko loo defe woon mu ne damaa defe woon ne man naa baax naa ba mën a defe ndeke man baaxaguma ma ne kon naa retiré dem defaru ba pare doo a jéem a defare ma ne ko kon kay defaroo dangay yàqu ci da ngaa pour yàqu kenn du defaroo fu dul ci biir nit nekk sa ruq sa jabar say doom say surga kenn ci ñoom ñemewu laa joxoñ baaraam foo noo fay defare loo wax ñu ne waaw loo def ñu ne baax na fooy defaroo defaru ci biir nit ñi ngay jóg koo gën fuuf xas la nga muñ ko ngir yàlla koo ëpp xam-xam foofu weddi la nga nangu ko ngir yàlla waaw loolu mooy defar ci biir nit ñi la defaroo kenn du beru defaru moo tax kilifa yi sax kilifa gu ci gën a bëri lu muy def lu muy beru moo gën a matadi ci kilifa yi bopp bi dara du ci nekk lu mu la wax ñuub de lay doon la wax ñuub de kilifa du beru ëpp naa def man su ma gisee kuy taggee kilifaam dafa du du gis kenn du ma ne kooku day moom ab dof la rek dof bu ñu ber rek bu am daraja dof bu am daraja nag mën naa tas am réew ndax koo xam ne loo wax ñu def ko ci sa bi ñaari liif nekku ci yow ku tas dëkk bi ci nga bokk kon nañu jaxasoo nit ñi te nekk ay nit waaw bañ a bàyyi jaay jaay lu amut bi nañ bàyyi jaayante bi lu amut li ñuy jaay amut duñ tus waaw waaw duñ tus ay nit kese lañ yu mata di dong ay nit ñu mata di dong nañ jàng mat ci nit yàlla dafa jël mat séddale ko àdduna bi parce que xajul kenn ci ñun amul kenn ci ñun ku mat xaj ci moom yàlla jël mat tasaare ñu ko ne nag kenn ku ne na wëri ko mànk ci nit fan la nekk mu jëli ko fa moo tax ku la gën a jaxasee ak nit ñi moo la gën a nite ku la gën a beru moo la gën a dofe yàlla na yàlla musal ci beru yàlla yàlla xiir ci jaxasoog nit ñi te man leen muñal seen i benke yenke ndax yàlla may ñu ñu juboo déggoo ci liggéeyam bi jaamu ko mu nangul ñu ko yàlla ñu ko yàlla dafa aqulu qawli hada